maam Cheikh naa baykat da jaaxal na ma jël sa yaakaar def ci suuf ba pare dékk say loxo asamaan waaye Cheikh Ibra ne yàlla ko fu la bu ko jox ndox moom béykat daf koy tooyal rek waaye suuf la koy yónnee Cheikh Ibra nee su ko defee suuf ëmb ndox mi génne ko njëriñ na ah wax leen nag man doom kooku lañ war a waxal Cheikh Ibra Fall mooy ki ñu sëñ Touba joxañ te it fii jamono toll jaare dara am dara ci sëñ tubaa jaar ko ci moom moo gën a gaaw ba ci wérd sax tur am am naa ci lu wóor sëñ Cheikh Oumy Mbacke mu sëñ Fallou moo ma ne man sama aajo Cheikh Rafal laa koy diis saa bu ma amee yitte bu dëgëree damay bàyyi bu gudd jot ma yor sama kurus bu ma ko woowee téeméer yoon bu ma xëy muy sotti man xam naa koo xam ne man na maa wax turam toog na di wér da aw tur ci kanamu Cheikh Ibra mag ñee ma ko wax ñoo ko fekkee maam Cheikh na gees na këf kurus xëcc ko mu dagg mu sànni ko ci kanam mu dal ci jëb bi Cheikh Ibra Fall na ko bujju ngëj doom yaa jommanteeg loolu ngay wax sama tur wooy xuddaam lu caa wóota mu wuyu la daal taxaw ci njaarim ne dee leen ma woocu lu ko jar maa gën a gaaw melaxta du ma wuute waaye nag bu mu jaaxal kenn ku ñaan ñàkk boo jëndee am ah. Cheikh Ibra daa jënd ku ñaan ñàkk mën a soo jëndee am Cheikh Ibra daa jënd daa jaayante ak Serigne Touba daa jënd la Serigne Touba yor di jaay la Cheikh Ibra ñëw xam njëg gi jënd ko Serigne Touba joxoñ ñu Cheikh Ibra ne mooy ki nga xam ne ak taalibe mooy li ndax koo mën a doon ak taalibe képp mooy liñ lay nawee doomi sëñ Touba yi fi nekk yëpp ak taalibe lañ doon doon nawee sëti sëñ Touba yi fi nekk kenn ku ne ak taalibe ci lañ lay ci lañ lay naw ak taalibe mooy li gën te ak taalibe alali Cheikh Ibrahima Fall Baay bi Mourideen la jëmm ji toog Cheikh Modou Moustapha Fall ko jur ma wax ci moom benn baar rek sëñ Modou Moustapha Fall baayam sëñ Modou Moustapha Mbacke gouverneur Wiltor daa woote ca Ndar Cheikh Modou Moustapha Mbacke woolu baayam seex Modou Moustapha Fall ñu ànd kilifa yu bëri daje nañ fa biñ egsee gouverneur génn ànd ak soxnaam di joxe loxo kum jox loxo ci kilifa yi jabaram jox la loxo nga jël bi mu egsee ci Cheikh Modou Moustapha Mbacke sëriñ Modou Moustapha Fall mi njëkk wutu Cheikh Ibra mi ngi ci wetu sëñ Modou Moustapha Mbacke xam na ne gouverneur dana jox loxo dana jox loxo Cheikh Moussa Mbacke te ndaw si dana jox loxo sëñ Modou Moussa Mbacke te sëñ Modou du nuyu ndaw si sëñ Modou Moussa Fall taxaw ci wetu sëñ Modou Moussa Mbacke bu gouverneur na jëyi loxoom seex mu Cheikh Moussa Mbacke sëñ Modou Moussa nuyu ko rocc loxoom ndaw si na jëyi loxoom seex Modou Moussa Fall sa baay moo nuyu ndaw si ne ko kii du nuyu jigéen. Ah, waaw waaw waaye nag sëñ Mamor Mbaye bu leen dara jaaxal ci loolu Cheikh Ibra Fall waxoon ne Modou Moustapha mu na ko Fall mu ne ko fu ngeen dajee njabootu sëñ Bamba lu war a takk ci ñoom na leen takk yéen yéen yóbbu tuuma ñoom ñu set moo tax càng gi ak njaam gee fi la sëñ Modou Moussa sa baay Cheikh Ibra Fall na ko jël leen càng gi jox si waa kër sëñ Bamba te seen njaam gii su woon ko dem ba seen njaam gi yéen moo dëggal na càng gi waaye ku ne xam na ne ci càng ñëpp ñi ci càng gi ñëpp nga wàcc ci njaam gi mën naa laa tuddal kenn ci Cheikh Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fallou moo man direct Sara Fall doo sama yaram moo ma ko wax Serigne Fallou moom Serigne Soyebu moo ma ne man sama addiya ci loxol sëñ Modou Minta Fall laa ko daan jox ndax xaw ma bu ma joxee sëñ bi dana nangoom de te Seera Fall lu mu jox sëñ Tuubaa dina jàll sëñ Cerno Mbàkke gelongal na ma man bëgg ma bëgg Cheikh ba Fall daal jaaxal na ma du mbëggeel gu ma taykat ni ma bëgg sëñ Tuubaa laa ko bëgge sëñ Basiru Baar na ma su ma doonoon doon sant Mbàkke man mana ma ne ko ma ab Baay Fall laay doon Cheikh Ibra ngoog kooku lañ war a waxal moo tax xool ab joxañam moo ñuy dimbali bu se buñ bëggee ci sëñ Tuubaa dara nañu roy ci maam ba mu diina buñ bëggee ci sëñ tubaa dara nañ roy ci Cheikh Ibra Fall lépp lu sëñ Touba mas a santaane lépp lu sëñ Touba mas a joxoñ Cheikh Ibra Fall xoolal raay baa ngi nii nañ taxaw ci raay bi rek raay bi bàyyi ko njaarim jëm Touba buñ neexoon saxaaru buutu ci daw murit yee ko gas ma ne raay bi bàyyi ko njaarim jëm Touba buñ neexoon saxaaru buutu ci daw laa murit yee ko gas 1929 lañ ko tàmbali sëñ Jili Ñang yaa ngi may dégg 1929 maa ngi ko dégg ci làmmiñu Baye Ibra Fall Madior mag ñaa ngoog Baye mu sàll mbëmb Baye Daouda Ndiaye mbëggum raay bi 1929 la tubaab bi santa Serigne Modou Moustapha Mbacke na ko junniy nit ak juróomi téeméer ñoo koy gas te te duñ lekk laax ak yii de ceebam ndawal la ñuy lekk ndax liggéey suuf daa diis sëñ Modou Moustapha nangu naa. bay daaw dëggay baax daas nee na réunion biñ mu ko woote Cheikh Modou Moustapha Fall sa baay Serigne Saliou Fall toog na seex Ibra baayam toog seex Cheikh mu Moustapha Mbacke toog. tubaab yi wax sëñ mu Moustapha Mbacke loo xam ne lu jafe la sa baay sëñ Modou Moustapha Fall teggi Cheikh Ibra Fall bàyyam wër sëñ Modou Moussa Mbacké jàkkaarlook moom joxoñ ko na ko Modou Moussa bu na ko Mbacké sëñ Modou Moussa Fall na ko nangul lu la tubaab bi wax nangul man Moussa Fall li ko jëlee njaarim ba Touba foo mën a tërëf ak weñ fa tërëf ak weñ saa am Cheikh Ibra Fall fas sa ñaari loxo yëkki ci kaw naa Moussa Fall sama doom ji jërëjëf doom ñu tàmbali raay bi 1929 Baye Ibra Fall Madior nee na ma ñu def ko par équipe équipe bi tàmbalee njaarim bii Sambe bii Patar bii Ndula kii bii Kër bii Ngaabu ñu déjji garab yi ba noppi tàmbali ngas mi bi ñuy gas raay bi maam Cheikh Ibrahima Fall juróom-ñatt téeméeri nit la joxe sëñ Modou Ablaye sëñ Ablaye Fall ndara leen jiite woon bi Cheikh Ibrahima Fall joxe mbooloo mi takat junni nit ak juróomi téeméer la doon joxe de sëñ Modou Moussa Mbacke moo ko ne nag Fall seetal loo joxe rek ñi ci des ci sëriñ si kenn ku ne am loo indi ndax liggéey ndax ndax barkeelu la Cheikh Ibrahima Fall ne danaa joxe juróom junni nit danaa joxe juróom-ñatt nit ñu tàmbali liggéey bi bañ tàmbalee liggéey bi bi ñuy egsi ndu la sëñ Modou Moustapha Mbacke Baye Ibra Fall Madior ay wax may dégg de nee na sëñ Modou Moustapha Mbacke moo ànd ak sëñ ma surang surang ak mbaaxaan ñu seet si leen foofa war go wëri la leen jox war ga daane maa ngi janoog yéen dangeen ci am ndimbalal tey ak loolu ëllëg sëñ Modou ko wax keroog nee na bañ fa jógee sëñ sëñ Maam Mor bi ñuy egg si dala xam nga dala ngaabu fa la samam Cheikh Rafal keroog bi muy ñëw ak wax wagen bu verte la yor Cheikh Ibra sëñ Modou Fall ko doon dawal doomama xam nga ñoom àndal Ablaye Xaar Diop doomi Lat Joor sëñ Mat Loo doomi sëñ Maam Mbay Loo Baye Seex Tal Galo Yuusu sëñ Yaaram Mbay juróom yi la àndal Baye Rafaal Maajoor nee na bi ñu Cheikh Rafaal di jub si xam nañ ne oto bii moo ci nekk ñu ne yee teg leen liggéeyukaay yi liggéeyukaay yi peel yeeg yëpp teg leen ko te yegg su ndax kilifaa gi ñëw waaw Cheikh Rafaal sooy kaale xoolal may lus bu ñuul la sol daal di wagganti kaala sàmba sàng yu gudd yooyu la kii ba mu ci may wàcc ci suuf maam Cheikh Ibrahima Fall ba ma toog bay rafal maajoor nee na see rafal wàcc ne hee hee doom Modou Moussa Mbacké mooy góor ma ne Cheikh Modou Moussa Mbacké mooy góor daan ne seen liggéey bii doom mbaa fooyewu leen ko ñu ne ko ah déedéet Fall see rafal teen naa doom seen pënd baa ngi may seen aras doom seen pënd bi mi ngi nii may seen aras na ku ne war naa def ni yéen ku ko mënta def nii ngeen koy defee doom na gas leen ci këram pëndam jug jaxasoo seen pënd bi doom fay fanaani sori bii ngeen di liggéeyal sëñ Bamba doom bu demee day yëgle ko ko def yëgal ay wajuram na lépp ju mucc lay tàbbi doom daan naa aar leen ma liggéeyukaay ma def ni yéen ku ñuy wax Jibril Gueye laay wax moo ko sànni peel Cheikh Ibrahima tibb juróom-ñaari peel ci wetam di jooram sànni ba sànni ba suuf sa dàll ca sëkk ba mu téen na gars yi gis ngeen ma ñu ne ko waaw mu ne ma nit doom gis naa leen daana waaw doom foofu Tuubaa féete ñu dem ba ko joxoñ mu daan na bàyyi leen ko xam naa ko daan maa ngi bëgg a mat góor de Cheikh Ibrahima wax de maa ngi bëgg a mat góor de daal di wax na liggéey sëñ Bamba doom ku ci sa doom toog Cheikh Rafal bu ñëwee di sa baay waaw foofu la ko waxee. liggéeyub sëñ bamba Cheikh Rafal nee ku ci yabal sa doom toog doom bu ñëwee di sa baay liggéeyub sëñ bamba ku ci yabal sa jaam toog bu ñëwee di sa sang waaye bu dee sa soxna nga yabal toog sa kër bu ñëwee di sa jëkkër doom daan na lii tax ma ñëw. daan na ngeen ma seeral nekkat kat doom ñëwoon naa ci liggéey bi maam Cheikh Ibrahima Fall tibb ci juróom-ñaari pel suul daal di taxaw wax loolu. booba raay bi egg seegul Touba. booba dala lañ toll dala ngaabu talaata la loolu xew talaata talaata ca delsi ca guddi ga ca la maam Cheikh Ibrahima Fall wàcc liggéey Cheikh Ibrahima guddik altine altine ci guddi ba la 3 juin 1930 di ñetti fan itam xarit ci njaareem la wàcc liggéey ci kanamu Baye Cheikh Ñang Baye Wasey ño Ñang Baye Cheikh Moudou Fatma Fall Serigne ba Mbacké ke sëñ Fallu lañ ko fanaanal fa lañ ko fanaanal ke sëñ Fallu maa la wax loolu man fa lañ ko fanaanal la 3 juin 1930 maam Cheikh Ibrahima Fall du ci ñii Cheikh Ibrahima du ci ñii dañ ko war a waxtaanee moo tax nii ngeen def Cheikh Makhtar saa bu guddi gi yegsee ngeen jël cër bi jagleel ko maam Cheikh Ibrahima Fall ah Cheikh Ibrahima ah xam na li xew de te billahi wallahi wa taala ku xam dara ku mos dara da nga fexe ba sa dara nga di ko mosal maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridine muy jaar ci moom ndax de su ko audit sëñ Mamour Mbaye jëfi Cheikh Ibra kenn du ko audit sëñ Saliou nee na Cheikh Ibra Fall la Cheikh lu jaar ci moom day jàll moo tax sëñ Falloum sëñ soy bu na ma saa bu masaane yëg ne sëñ Mouramin Tangi yóbbu addiyam fajar teel laay taxaw bundu ko sëñ Saliou suy dugg rek ma jël sama enveloppe jox ko ko na ko yóbbaaleel ma ko xam naa ne jëfi Cheikh Ibra Fall sëñ ko delloo sëñ Falloum sëñ soy boo ma ko wax nee na ma def naa koy aate at at kon Cheikh Ibra ngi noonu moo tax waxoon na ne da ngeen da ngeen ma xool bu baax xàmmee ma Cheikh Ibra nee na ëllëg yowmal xiyaam bokkuma ak sëriñ si nga xam ne yàlla day sopp seen xar ba kenn du leen xàmmee Cheikh Ibra Fall nee na nii ngeen ma xamee doom nii laay dekkiwaale suuf du ma lekk Serap Fall a ko wax. ëllëg ku ma gis doom xam na sa sang baa ngi nii waaye guerre 14 18 maam Cheikh yabal 313 soldats Serigne Fallou Fall doom ma nga tëdd France tey kon lu sëñ Touba Massa santaane Cheikh Ibra ci jiitu. du ci moromum kenn Cheikh Ibra Fall liggéeyal sëñ Bamba lay def ak moo tax li ñuy wax léegi di wax sëñ Baara Mbodj wax na ko gis na julli ak woor ak yooyu Cheikh Ibra Fall jaamu yàlla am lëggal sëñ Bamba la ko defee moom yooyu déglu ci woon dara daana wax na nag waxoon na sama maam ne ko Babacar Ndaw mu ne ko faal mu ne ko jàpp ak julleeg woor lempab yàlla la war na bopp bu yàlla sàkk waaye man Ibra Fall mii ajuma ci sama dara doom sama lépp dama ko ci liggéeyal sëñ Bamba Babacar mu ne ko faal mu ne ko ëllëg yomal xëyam fa ñuy fayee jàpp ak julleeg woor ku ma fa taxaw di ma seet doo a gis waaye fa ñuy faye liggéeyal sëñ Bamba ko fa taxaw maa lay fay mbaa doo fayu te man foofu laa bëgg fayu koo ëllëg wasalaamaaleykum wa rahmatullah cey cey cey sëñ